te muy lu am solo ndax day yelleef yoo xamante ni sunu borom subhanahu wa taala dana ko laaj su ëllëgee kon tom bu am solo la su ko defee nag loolu dana waral ma jàpp ne ndem waa daayira bi tànn nañ tom bu mel noonu surtout yàlla dogal ñu def ko ci biir weeru koor te weeru koor waxoon naa ko ci sama benn commentaire bu ma defoon ci sëñ Baye Ablaye Diagne ne day weer woo xamante ni dundal lañ ko war di def te bañ koo sàggane waaye nag comme jataay bu mel nii dara gënu ko foor ci dundal weeru koor rawatina nag nga jël tomb bu amee solo nii boo xamante ni suñu génnee léegi léegi léegi te commencé koo mën a appliquer ci ñi nga xamante ni ñoom la ñeel loolu wax dëgg yàlla day gën a amaat solo tax na euh, dañ leen ci ndokkeel bu baax a baax léegi nag suñu wax ne euh, ak yelleef yi woy néew doole yi yelleef yi way néew doole yi moo taxoon euh, day day ñaar maanaam benn bi mooy yelleef bi ci des mooy woy néew doole yi dëgg-dëgg lan mooy yelleef ak itam ci biir yelleef yi lan la ñuy tudde yelleef yi doomu aadama suñ noppee doo wax lan ñoo ñu néew doole ak seeni xaaj ndax xaaj bu nekk dafa am yelleef boppam yu bokkut kenn wala dafa ko bokk ak nit ñi wala dafa am loo xam ne moo ko moom ngir ni mu bindoo ak loo xam ne nag mën na koo bokk ak ñeneen ña ak nag mujj ci yelleef yi nga xamante ni ñëpp a ko bokk kon noonu lañ koy noonu lañ koy tënkee euh, tomb bi am na solo am na solo goo xam ne soo ko dee jàngat ci biir lislaam dangay xam ne ñi nga xamante ni ay tubaab lañ wala ñu yore yaru tubaab léeg-léeg suñu naan la liberté droit amul ci lislaam ndekete ñi ngi wax lu ñu xamut ñu wax ne liberté ak droit amul ci lislaam dañu wax waxuñu lu ñu xamul ndax am na ci ñoo xam lislaam xamut droit de l'homme lislaam xamut maanaam yelleefi doomu suñu noppee ci yii da xam ne lislaam euh, moo jiitu ñi nga xamante ni ñooy wax droit de lom fi mu toll nii moo leen ci jiitoo loolu di benn suñu noppee itam da xam ne lislaam moo raw diine yi ko jiitu ci wàllu googu moo ko ci raw maanaam mooy xëy na la mu accordé ñee ñoom accordé wuñ ko loolu moom ku ku mën a seetlu rek da nga ko xam waaye fas bëgg nañ koo fésal ci sunu jataay bi Euh, problème bi fu mu nekk mooy ñiy wax ne l'islam xamul droit de l'homme ñoom euh, jàngat bi ñu jàngat moo xaw a wuute ndax dañ naan la l'islam li muy wax mooy war na ci diw nangam ci diw matalan war na ci ki jiite mu yërëm te déglu ñu mu jiite nga xam ne ñoom kon nee nañ loolu du loolu du yelleef loolu su dul yelleef lu muy doon loolu jar na laaj ndax diggante yelleef ak euh, wareef maanaam diggante droit ak devoir dama koy misaal lu bare bari ci euh, koppar koppar mooy pièce mone koppar wala pièce mone boo gis ñaari xar kanam la ñi daa def ay yenn yi xam nañu yow fis ak tet maanaam koppar bu nekk am na fis waaye am na tet mun mënoo wax ne fiis rek li fi am te amu fi koppar bu nekk am na ñaari xarkanam ñaari xar kanam yooyu mooy doon xaalis bi mënut a doon benn mukk lool na mooy diggante yelleef ak wareef wareef woo gis ci kaw waay yelleef la ñeel keneen maanaam su ñu ne njiitu réew mi war na muy déglu ñu ko jiite maanaam devoir la kon warteef la ci président bi mu war ci moom mu gàllu ci moom waaye ña jiite nag seen yelleef la maanaam àq la ci ñoom joo xam ne ñoo ko moom ci kuñ ko war a jëlee ci président àq la joo xam ne président moo leen ko yoreel ñoom itam comme yu mel noonu dañ naan euh, borom kër war na ci moom mu def nangam ak nangam nangam ci soxnaam loolu lu muy firi ci côté bi ci soxna si kon danga nga naan yelleef la bu mu am ci kaw boroom këram xale bi war na ci juram mu jàngal ko war na ci mu yar ko war na ko mu toppatoo ko ba dara du ko dal ci wàllu wér-gu-yaram yooyu loolu su dee devoir ci ci waajur wi kon yelleef la wala droit la wala euh, kii la ci ci ci xale bi kon li ma bëgg a junj rek mooy euh, wax ne lislaam waxul loolu lislaam daal ay devoir la joxe nii rek wala ay charge wala ay mission ne nit ki na ko def wala institution bi na ko def wala yu mel noonu loola soo ko xoolee ba ci biir mooy Euh, ma ay ay na ngeen ma jégal ci wax ji waaye ay tappale la yoo xam ne dañ cee bëgg a def ngir xeex lislaam waaye xam nañ ne lislaam xam na ay droit bu wér a wér xam na droit de l'homme bu wér a kon loolu benn problème la ci seenu déggin beneen problème bi itam mooy maanaam li ñuy wax euh, champ d'application fan lañ koy bëgg euh, jëfe muy benn ak itam niñ ko bëgg a yaatale maanaam loo xamante ni ñoom dañ ko bëgg a jàpp ne droit de l'homme la nit ki moo ko war a am te loolu lislaam reconnaître ko ndax ñoom nañu tawwee euh, euh, mu tëddi droit de l'homme wala yu mel noonu mën naa yaatu yaatu goo xam ne islaam reconnaître wul loolu loolu di di beneen problème boo xamante ni bokkute kon li ma tuddoon léegi ci déggin wi tey champ d'application maanaam di ko tawee rek muy dugg fen dama leen jox exemple yu ndaw euh, am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne bokk na ci yellee fi nit ki mu mel nu ko neex mu mel nu ko neex ci jëmm ji laa bëgg daal su ko defee góor la mu soppi ku soppi ku def ay intervention chirurgicale maanaam ay opération yu mel noonu ba yore jëmm yi jigéen wala mu doon jigéen soppiku ba doon góor wala ci ay li wax choix ci dundiin góor la mu ne man kat góor laa waaye bëgguma jaxasoo ki jigéen ci ay sëy yooyu góor laay bëgg a jaxasool ñu bëgg koo def droit wala safaan bi jigéen ngoo xamante ni de man jigéen laay bëgg a jaxasool xeet yu mel noonu bëgg koo jàppee comme droit mooy li ngay dégg ñu bëgg ko tudd ay droit naturel ak ay nangam nangam yooyu ba sax tur yenn yi kenn euh, ñemeetu koo wax dinañ ko jëmee fi noonu kenn waxatut homosexuel maanaam dañu dem ba ci kanam Sénégal kenn ñeme wut fee tudd ba maanaam baatub ñaari tur yi doo doo doo ko jëfandikoo foofu lii moom maa leen ko wax gaa ñi ne nañ paree guñu yàlla bu ñu paree ilaa yawmil qiyaamati kon loolu di beneen problème boo xamante ni ci aw déggin la beneen problème bi nag mooy waa kay loolu ñuy wax yelleef wala droit wala liberté kan moo ko war a joxe maanaam loolu la ñuy wax légitimité kan moo war a wax ne lii yelleef la wala du yelleef lii droit la wala du droit loolu beneen problème la boo xam ne ñun ak ñoom déggoowuñ ci su dee lislaam moom yàlla mu subhaanahu wa mu bind moo séddale yelleef yi séddale warteef yi moo wax ne yow kilifa gi yilif nangam ak nangam ak war na la ci ki nga yilif yow mi ñu yilif nangam ak nangam nangam am nga ko am nga ko ci kile yilif ñoom nag ay li ñu bind la rek di teg yoo xam ne fañ ko tàmbalee mooy li ñuy wax contrat social tudd naa ko lu bare bari ba euh, du ma ci ñëwaat lu bare bari ñoom Jean-Jacques Rousseau ak ñooñu jàpp nañ nit ñi daal ñoom ñoom ñëpp a yem kenn waru leen a ga maanaam kenn waru leen a kenn waru leen a forcer dara ne leen seen yelleef la léegi nag comme que loolu noonu la demee ñoom ñoo daji seen biir ba waxtaan ne kon nangam ak nangam la ñuy tëral su dee lislaam nag kenn mooy tëral kenn mooy atami suñu borom subhanahu wa taala en tout cas ci euh, kii yu mag yi indi na ci ay ATM am na ci yoo xam ne soññee na ci bu baax a baax yëmul soññee ci waaye da cee dig yiw woo xam ne kenn xamu nu mu toll tëkkoo ca ka bañ ko ka ko bañ a def euh, mbugal mu rëy rëy loolu nag da ngeen xam ne lislaam moom euh, xol lay waxal ka nga xam ne gëm na ko di la dikk yoo xam ne gisuloo ko comme yomal xiyaama ak yu mel noonu kon ka ko gëm moo ko gëm moo koy mën a jafe ka ca des nag lu ko neex mën na koo jàppee ba ëllëg ba xam ñu xool na ñuy def su fekkee ne loolu noonu la demee kon ci lañu xam ne déggin wi pas-pas yi ak champ d'application bi ak fan lañu war a jëlee atte yi loolu moo ñu doxale waaye nag ñun dëppoo nañ ci ne lislaam jox na maanaam euh, nit ñëpp ba du nit ñi sax euh, nu mu tëddi ndegment yi jox na leen ay yelleef tàngoor wi man ni nga leen war a saytoo ak bàyyi leen xel di leen jox ñuy naan su dul yu mel noonu yëpp fi noonu ci lay bokk waaye loolu day dafa yaatu lool ba dana jël suñu waxtaan lépp waaye rek li nga xamante ni daal wér na mooy yelleef moom lislaam jox na ko doomu aadama waaye tam ci biir doomu aadama nag lislaam da cee jagleel ñi néew doole yeneen yelleef ngir ay sabab yu baree baree bare sabab yi mën naa doon at yu bari mën naa doon situation wala statut bu xaw a néew doole euh, loolu dañ ci ñëw ci kanam kon luñ ci dégge mooy lislaam lu jiitu junni at ak ñeenti téeméer ci tey wutaloon na ñi néew doole yi ay yelleef boo xamante ni ñii di woote léegi droit de l'enfant de la femme euh, ak euh, li ñuy wax borom euh, besoin spécifique mooy handicapé handicapé yi ak ñu baree bari te biñ koy tàmbalee tudd ak léegi matagul ñaar téeméeri at fekk na ñoom lislaam gën jàggat danga nga jiitu na leen junni at ak ñee ak ñaari téeméer ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bi fi jógee ak léegi mën na téeméeri at ak fanweer ak benn astafurlah junni at ak ak ñeent téeméer ak fanweer ak benn laa bëgg a wax junni at ak ñeent téeméer ak fanweer ak benn xam nga loolu yàgg na te ñun li ñuy waaj a tudd nii yëpp ba mu koy wax am na ci ñoo xamante ni yelleef doomu aadama sax xamuñu ko reconnaître ñu daanaka jigéen ku néew doole moom dañ koy euh, daanaka dëggaate kon euh, lu mat a am lu am solo la ñu di ko waxtaane ndax soo desee ay 1789 yooyu ci lañ commencé euh, maanaam révolution française bi ci lañ commencé tudd ñoom li ñuy wax ay nu mu wala équité liberté ak égalité xeet yu mel noonu kon yàggut ba ñu wax égalité ak yooyu euh, ay liberté bañ koy doog a instauré comme jàpp ne lii dafay ay principe principe mooy ay ponk yoo xam ne dañ caa war a dellu yàggul te boobu maa ngi ne yu ci bare bari ci ay Jean-Jacques Rousseau yu mel noonu lañ koy sukkandikoo kon nag ndem dëppoo nañ ñun ci ne lislaam jox na ñu néew doole ay àq yu am solo léegi war nañu wax lan mooy àq lan mooy yelleef ak lan mooy euh, ñan ñoo ñu néew doole kon suñ bëggee wax ci concept euh, droit ak itam droit de l'homme wala droits humains mooy lan dañaan yelleef moom wala boog àq bu mu ci mën di tudd soo gisee maanaam baatu arab beeg yëpp ci am su dee baatu arab bi moom dafa gën a foor ndax ak itam la moo tax saam jëfandikoo ko ndax xàq moom mooy dëgg mooy dëgg xaq mooy yelloo maanaam suñu ne diw am nga àq ci nanga mooy yelloo nga ko yelloo mooy sañ nga koo am waaw sañ nga ko sañ nga koo am kon àq noonu la toll waaye la gën a yéeme te moom la ñuy tëje foofu comme ci lislaam ak ni mu koy xamle alxaqu ci boppam dafa bokk ci turi suñu borom yi subhaanahu wa taala alxaq yàlla mooy alxaq kon yàlla ci boppam ndeem moo boole ci turu boppam alxaqu kon yàlla du tooñ du xañ kenn yelleefam loolu tax yelle foor lool euh, waaye su dee nag ci droit yi nii dafa am ay courant daal li ñuy ay courant maanaam ay déggiin ci lan mooy alxaq léeg-léeg am na ñoo xam ne maanaam euh, nammeel maanaam yow al iraada daal nammeel lañ jublu maanaam am am nammeel wala li ñuy wax coobare daal coobare am coobare ci jëfandikoo lii mu yor danañ ko koy e, mën na ko firi wala boog am ci maslaxa maslaxa mooy intérêt e, intérêt nag wala maslaxa baatu wolof bi nii nii nii teewlu ma ko waaye daal maanaam foofu li ñu koy xoole mooy Euh, taxaw def loo xam ne amal na la njariñ waaw kay njariñ def loo xam ne te amal na la njariñ am na boo xam ne dañ koy boole ñaar yëpp mooy lan euh, bëgg def lu la amal njariñ te man koo def kon loolu la waaye ci gàttal soo ko doon seet ci lislaam walla boog sax ci luwaay yëpp dañ naa la mooy loo xam ne yoon jagleel na ko nit ki ba noppi sàmmal ko ko lépp loo xam ne yoon jagleel na ko nit ki te sàmmal ko ko loolu su boobaa droit lay tudd yelleef lay tudd ñun nag euh, définition bi maanaam mooy lii ñu tudd nii dafay valable ci lislaam valable itam ci ñeneen ñi ndax yoon ci lislaam xam nañ lan mooy yoon mooy sharia su dañ naan la sharia may na soxna si àq ci boroom këram da koy dëkkal dëkkoo ko dundal ko yu daan ne la euh, doom ji am na àq ci waajuram euh, tànnal ko bu euh, tànnal ko euh, yaay ju baax tudde ko turu rafet jàngal ko yar ko sàmm ko aar ko ba ay cëram dara du ci làggi dara du ci def nangam kon loolu yoonu lislaam moo ko may gone gi moo ko may soxna si walla nga ne ñi nga xamante ni koo xamante ni am xelam Euh, dafa matadi am na yelleef ci ñu sàmmal ko comme ñi nga xamante ni ñoo koy ñooy kilifaam daal ñu sàmmal ko alalam bañ ko yàq sàmmal ko wér-gu-yaramam toppatoo ko ba du dugg ci li koy gaañ aar ko ba keneen ko ku du jëm si ci moom ba di ko lor loolu ba tey nga xam ne lislaam moo ko teg muy yelleef ci koo xam ne xel mi dafa matul loolu itam mën naa doon ay luwaa nii itam ñu ne luwaa bii kat maanaam réservé na ay droit nangam ak nangam ak nangam ñeel xale bu ndaw bi ñeel euh, jigéen ñeel euh, koo xamante ni dafa euh, nekk ci kaso wala yu bare bari daal ba ci li ñuy wax prisonnier de guerre nga xam ne dafa am ay traité international maanaam yoo xam ne ay convention lañ mooy ay réew ñoo dëppoo ci ne képp koo xamante ni dafa nekk ci guerre di xeex ak meneen réew itam suñ demee ba jàpp ko am na yelleef sàngam ak sàngam ak sàngam yoo xam ne ñoom ñoo ko am kon ci gàttal euh, yelleef mooy lan mooy li nga xamante ni yoon daf koo jagleel jëmmu jëmm ji ba pare aaral ko ko aaral ko ko mooy keneen sañu koo jalgati wala su ko jalgatee am na ay daan yu ko ci fekk ay nag ci lislaam mën naa doon daani tey mën naa doon daani ëllëg mën naa doon ñaar yëpp maanaam am na ci yenn xeeti jalgati yoo xam ne fii ci àdduna dana am ay daan te itam mën naa am ëllëg ay daan am na ci yoo xam ne suñ ko defee daan yi fii jàpp nañ ne loolu rek mooy ay daanam loolu rek par exemple nit ki euh, wala iyaas billaah yàlla na mm, yàlla ngeen ci mucc te mucc ci dafa Euh, séq ak ku mu takkul mbaat bi moo tuddu njaalo kooku am na daan boo xamante ni am na fii ci àdduna su fekkee ne dafa am soxna wala boroom kër dañ ko raj rajm maanaam sànni li ñuy wax lapidation ba mu faatu su fekkee nag amu ko dañ ko war a dóor téeméeri yar am na ñoo xam dañ ci teg te tëj euh, tumurankeel ko wala tëj ko am at exilé ko daal mu génnoon loolu fii la fii ci àdduna waaye am na ci yoo xamante ni day weesu foofu maanaam sunu boroon daf cee wax sax ay tëkku ngir yomal xiyaam am na ci par exemple xas nit ci lu demee noonu te ñu baree bar dañ ko tàmm kii doomi nangam la doomi nangam fi mu toll nii am na am na normalement daan bu fi am ci àdduna muy dóor ko téeméer yar képp koo xam ne da nga koo tuumaal ci njaalo te indiwoo seera yu mat sëkk mu ñeent yooyu ah te doo borom këram su boobaa li ci war mooy ñu yóbbu la bàcc bàccal la juróom-ñett fukki yar bu dëgg muy xadd li ñuy wax xaddu xasf yamu ca képp koo xamante ne daf koy def sunu borom subhanahu wa taala dafa am lu ñu ci wax lu leer nañ ñi lu aynoo fi dunia wal axira wa lahum adabun azim maanaam loola Euh, daan yi yemul fii waaye jëm na sax ëllëg gis ngeen loolu kon dama bëgg wax ne am na ci yoo xam ne yemul ci daan fii waaye day am daani fële ba ci lii ñuy waaj tudd nii àqi ñi néew doole soo ci tuddee ku demee ne jirim àqam ci ñu sàmmal ko alalam ak yu mel noonu gis nga ne moom itam problème boo am na ci am na jafe-jafe fii ndax képp koo xamante ni gaspillé na fi maanaam yàq na fi alali jirim mën naa dem kaso lislaam maanaam ci liñ koy attee da koy fay muy ab daan wala boog ñu tëj ko wala yu mel noonu daal ba kar mu koy fay loolu di fii ci àdduna te sunu borom kat nee na su yowmal xiyaame wa sa yaslaw na sairan sawara la ñu lekk te itam sawara lañ jëm gis ngeen kon euh, loolu misaal la ci lan mooy yelleef kon ci misaalu mi mi nga xam ne ci alquraanu karim lañ ko jëlee inna alladina yaakuluuna amwaal al yataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna saira maanaam ñi nga xamante ni dañuy lekk alali jirim nee na sawara la lekk li ñuy lekk seen biir comme sawara la te danañ tàbbi sawara kon lislaam suñ ko doon misaal foofu jox na fi jirim gi ngir néew dooleem yellee fi ñu war koo sàmmal alalam ndax moom mënu koo gérer boppam gestionnaire alali jirim bi nag moom war warteef la ci moom maanaam devoir la ci moom euh, charge la ci moom ci mu sàmmal jirim bi alalam léegi nag yan mooy élément yi nga xamante ni mooy composé droit benn am na ko ko moom waaye dafay am lu cay tegu mooy lislaam ba ko ko tegalee ba noppi ne ko am nga nangam daf ko ko protégeel daf ko ko aaral nu mu ko ko aaralee ndax teg na ci daan fii ci àdduna waaye itam bee moom da cee teg daan ci àllaaxira kon loolu la bëgg wax ne mooy euh, ni ñuy xamlee yelleef yelleef mooy li nga xam ne yoon daf ko euh, euh, jagleel jëmm ji ba noppi sàmmal ko ko comme misaal mi ñu tudd léegi kon nag ci nga xamee ne su suñu wax kon droit de l'homme wala yu mel noonu wala droit de l'enfant mooy li nga xamante ni dañ ko ko jagleel ngir ne doomu aadama la su fekkee ne droit de l'homme la su fekkee ne xale la ñu ne dañ koo jagleel ngir li muy xale su fekkee ne ku new doole la geneen wàll néew doole ñu ne dañ ko koo jagleel ngir ni mu mel par exemple nit koo xamante ni yàlla dafa muur ay bëtam kon euh, ñuy wax ngir loolu dañ naan mooy li nga xam ne lislaam wala yoon daf ko ko jagleel may ko ko nit ñi yoreel ko ko wala askan wi yoreel ko ko ngir ni mu mel nii nga ngi gis ak ay bëtam bokku ci yelleef yooyu kon ci lañuy xame ne yelleef yi ñu waaj a tudd day loo xamante ni li ñuy wax personnel la jëmm ju nekk ko moom moo tax du lu ñuy jaay du lu ñuy jënd du lu ñuy donn du lu ñuy fàggu ci yeneen anam yi loolu mooy lan mooy kii yelleef bii mu am ngir ne yàlla dafa muur ay bëtam doom ja mënu koo doon mënu koo doon lu ko waral mooy doom ja yàlla defal na ko xéwal muy gis kii yàlla bii mu am ndax dafa mënut a dox kon doom ja mënu koo doon moom itam mënu koo jaay keneen kaay may la sama droit bi su ko defee soo ma wala ba kaay ma jaay la ma joxee un million ma koy julli di toog li ma may nangam nangam ma may la ko déedéet loolu la mënut a nekk kon bokk na ci li ñuy wax xasaayis yi li koy màndargaal bokk na ci itam mooy loola am na ci yoo xam dañ koy xool ngir rek ni muy doomu aadama du leneen. maanaam yelleefu silmaxa bi wala kii nga xamante ni mënut a dox wala yu mel noonu muy ab do muy doomu aadama la du ngir ne murit la ngir ne mbaako la dëkk wala ngir kajoor la dëkk déedéet wala boog ab julit la déedéet maanaam kërul julit kër bi yéefar kay góor kay jigéen ngir na maanaam ba di dafa muuru am na yelleef jooju amul jullit la ak du jullit léegi kon loolu itam beneen la ci bi ñu desin mooy amul keneen ko am sañ-sañu nangu ko wala ne lii duma ko doxal ak ku doon moom daanee dafa war a dal ci ko xam ndeem daana nga bi kon loolu mooy yelleef léegi nag néew doole moom mooy leen ndax dañ ne yelleefu ñi néew doole euh, sëriñ Cheikh Fall tudd na léegi ne maanaam néew doole baatub néew doole yi rek wala boog ñi nga xamante ni seen euh, baat yi ñu jëfandikoo day wone seenu néew doole ñëw na ci alquran lu mat fanweeri barab luy wone nañ ñii dañoo néew doole am na ci surtout euh, maanaam ku wopp ku silmaxa ku am gàllankoor ci ab doxam ak yu mel noonu yooyu ñëw na ci alquran lu mat fanweeri yoon nga xam ne baat bi lañuy jëfandikoo waaye nag maanaa mi nag li ñëw ci alquran muy indi maanaa mi moom kenn xamu nu mu toll masalan dañ ci rek euh, ci saaru euh, suratu nuur foo xamante yàlla dafay tudd ñu mel noonu mooy fi naan laysa ala al xaraj wala ala al-araji xaraj wala ala al-marid xaraj wala ala anfusikum an taakulu min buyutikum nga xam ne dafay wax fo yéen moom amul mën ngeen a dugg xewlu ci seen kër yeeg yu mel noonu daanaka mu tudd say mbokk yow ñii la tudd ñu néew doole ci wàllum jihaad ak yu mel noonu am na laysa ala al-a'ma xaraj wala ala al-marid xaraj wala ala al-a'raj xaraj wala ala alladina laa yajiduna ma yunfiquna déedéet sax la waaw wala ala alladina laa yajiduna ma yunfiquna xarajun ida nasaxu lillahi wa rasulihi ma ala al-muxsinina min sabil nga xam ne booba euh, ñett la fi tudd ñoo xam ne li leen dal ci wàllu cër la tudd ci ñoo xam ne leen dal ci wàllum poche la ba tey ñooñu ñu néew doole lañ waaye daal dama bëgg jund ne ñëw na lu bare bare bare bare ci alxuraan mu leen di teggil ay mbir di leen jox ay droit yoo xam ne euh, mën naa am ñi ci des amuñu ko léegi nag noonu ko alxuraan fonkee loolu lu muy firndeel mooy am solo gu mu am solo am solo gu am solo ak lislaam nu mu ko fonkee lislaam itam da cee teg ay ay ci sàmm yelleef yi ni ma ko waxoon sànq ay yiw yu bari ay yool bu rëy waaye nag gàll ci ñàkk ko sàmm ak euh, doyadal gu ñu koy doyadal ak jalgati gu ñu koy euh, jalgati ay tëkkoo yu metti metti ci mbugal mu rëy rëy léegi nag kon nañu wax maanaam néew doole yan màndarga lay jël yan màndarga lay jël néew doole mën naa jël ñeenti forme maanaam ñeenti màndarga am na ci loo xam ne ci jikko la du ci bind maanaam da ci am ñoo xam ne wala boog nañ wax cim xel waxuma ne xelum comme li ñu naan koo xam ne antagum xelam maanaam ni koo xamante ni dafa réer kooku fi mu dafa new doole ak ni koo xam ne yàlla dafa ko bindee yàkkamti kooku dem dafa new doole ndax ci ay musiba rek lay dugg. Euh, ay musiba rek lay dugg kon loolu mooy bu njëkk bi booba nag dafa mel ni ñun intéressé wuñu tey maanaam kuréel ki mooy ki jàngul wala boog ki nga xamante ni euh, bind mooy ab yàkkamte kon loolu ci wàllum bind la ci wàllum am xelu lay mel daal am na ci boo xam ne ci sabab bi lañuy xool ñu ne la euh, sababu situation politique bu jafe boo xamante ni dana ko waral waaye xëy na naka jekk moom bindoowut nii te itam ci bindam amut euh, ak mànkite mathalan réew mu am jafe-jafe ci guerre par exemple réew moo xam ne guerre dafa am da gis am ñoo xam dañuy daw seeni kër génn moom la ñuy wax ci wolof daw làqu yaakaar na daw làqu mooy réfugié ci ci tubaab léegi kon loolu situation bi mel noonu dana tax nit ñi ñenn ñi bokk euh, ñu néewal leen doole surtout nag boo su boobaa nag jigéen ñi xale yi ñoo ci gën a am jafe-jafe ak minorité yi minorité mooy ñoo xam ne dañoo néew ci askan wi comme euh, su doon ci tubaab yi ñan laa war a mën a wax waay comme que wahab yi ñooy suñu doomi bàjjan naa wax wahab yi ay minorité lañ suñu dëkk bi teewul lu lu jamono critique critique tam war nañ leen a bàyyi xel bañ leen a tooñ wala fayu ci ñoom ngir xam ne situation bi kii na ñu gaaw reen rek yu mel noonu su ci am na ci yenn réew yi comme réew yu arab dañ naan koo xam ne masalan du arab maanaam ñi nga xam ne weneen làkk lañ yor wala ci réew yi nga xam ne jullit dañ fa ëpp minorité yi nga xam ne du ñuy jullit ay chrétien la ñu yu mel noonu situation yu mel noonu laa wax ne jafe-jafe lay jur ndax maanaam nit néew fa doole day yomb day néew day day yomb lool kon loolu dana waral néew doole situation bu am jafe-jafe ci wàllum guerre mën naa bañ a doon sax jafe-jafe wàllum guerre waaye mën naa doon euh, li ñuy wax catastrophe catastrophe naturelle muy jëye ci alam bi maanaam volcan muy suuf suy tàkk wala li ñuy wax tremblement de terre mooy suuf si yëngu ndax mën naa jékki-jékki rek laal lu bare bare gis ngeen li fi daloon Haïti ci at yële ci gannaaw wala tsunami bi amoon ci boori Indonésie yi mel noonu day fekk ay dëkk yoo xam ne yëpp daanaka da koy mabbu courant dootu am ndox mi dootu ñëw euh, su ko defee yu baree bari kii dootu seen dëkkuwaay dootu ñu fa nekk boole ci nit ñi dee kenn du leen mën a toppatoo euh, mbedd yi wala boog néew yi nekk ci mbedd mi kenn du leen suul mu commencé xeeñ te loolu dafa am ay feebar yu muy joxe épidémie day daal di xew muy am mbas yu baree bari ko defee ne dañuy génn ñi ñàkk lañ amoon ñàkk seen i kër ñàkk seeni yére amatuñu fu ñu gi war a daw làqu ji loolu situation yi itam dana bokk ci liy màndargaal néew doole am na ci beneen boo xam ne naturellement la ak doomu aadama du feebar waaye yàlla ko bindoon muy mage mage wala bu ñu wax mage dañuy wax màggat ñu xam dañoo dañoo màggat euh, loolu itam dana ko indi euh, si situation la boo xam ne ku ci nekk danga nga def da am ak néew doole Euh, wala safaan ba ndawe kuy doo a juddu euh, dëgëragut ñaar yooyu yëpp itam màndarga la ci ndax euh, da ngay gis ne ka ca nekk day néew doole ci yu bare bare surtout mage ak ndawe ni ko sunu borom waxee ci alquran allahu alladi xalaqakum min daaf thumma jaala min baadi daafin quwa thumma jaala min baadi quwatin daafa wa shayba yàlla da leen bind tàmbalee leen ci néew doole ginnaaw néew doole kat kàttan dana fi ñëw ginnaaw kàttan ngeen dellusiwaat ci néew doole ak bi jaaw kon yooyu dana waral néew doole ñeenteel bi mooy am na ci melo woo xam ne melo social la ci nekkiinu askan wi wala économique boobu ci am koom comme lu demee ne ñàkk ak wopp wopp wopp nag bari na ay ay ay xeet suñ ci ñëwee ci kanam dana leer ak koo xamante ni li ko dal lu ko gaar la li ñuy accidentel loo xam ne bindoowut ni waaye xëy na lu ko gaar la par exemple rek nit ki yàlla rek moom moom rek a man moom rek kay dogal mën na génn fii dara dalu ko muy xàqataay waa këram dugg ci otoom far yàlla dogal mu accidenté nekk en comment par exemple nga xam ne antukum xelam day nelaw wala am jafe-jafe yëngu ci wenn ay cëram man loolu nag mën naa doon luy continuer ba faaw mën naa doon loo xam ne ab diggante lay doon waaye teewul loolu lépp rek maanaam euh, ci xeetu wopp la xeetu néew doole la waaye tam ci biir askan wi la kon gis ngeen indi na fi ñeent yoo xam ne ñeent yooyu yëpp day màndargaal ak néew doole mooy loo xamante ni ci ñàkkum xel la wala yu mel noonu maanaam ñàkk yewwu wala yàkkamti loo xam ne wàllum politique situation politique wala catastrophe naturelle moo ko indi loo xamante ni ci euh, dundiinu doomu aadama moo bindoo noonu muy mage ak ndawe wala boog loo xamante ni ci nekkinu askan wi la akum koom muy ñàkk ak euh, wopp yu mel noonu léegi nag su ngeen gisee ñaari njëkk yi moom mën naa gudd lool waaye bu njëkk moom ñun waxaale wuñu ko duñ ko ci boole kon li ñuy wax mooy loo xam ne naturel la ci doomu wala euh, ci wàllum nekkin askan wi yooyu moo ñeel sunu waxtaanu tey am na ci yii ñu tudd nag mën nañ cee tudd fukk ak ci catégorie yoo xam ne ñëpp way néew doole lañ fukk ak juróom-benn yoo xam ne ñëpp ay néew doole lañ dañuy def léegi bu ñu bu ñu tudd ci yooyu rek tudd yelleef yi nga xam ne moom moo ko moom ngir ne lii moo ko dal suñu noppee nag boole yi nga xam ne ñoom ñëpp koy bokk waxoon naa leen ko may dema tuuti rek euh, kon fukk ak juróom-benn lañ tudd nañ njëkkee bi nga xamante ni maanaam jombul kenn amul saxlu lu jomb kenn ci ndogale suñu borom yi waaye wala fay waxee noonu muy wopp wopp feebar maladie anomalie gis nga baatu euh, anomalie bi ci ci tubaab euh, ñiy wolofal waroon nañu say jàpp wax lu mu doon ndax anomalie ci gàttal mooy lu bokkut ak la miin ci nit ki daal maanaam bokkut ak li ñu xam ci moom mën naa nekk ci yaramam mën naa nekk ci xelam. mën naa doon luy yàgg mën naa doon lu gàtt mën naa doon lu sax tudd nañ fi juróom-benni xaaj ëpp na ko sax mën naa doon ci xelam mën naa doon ci yaramam bu mu ci mën doon ci yooyu xam nga ñaara ko bu mënti doon ci yooyu mën naa doon lu yàgg mën naa doon luy gudd mën naa doon luy sax kon maanaam ñaar yooyu bu nekk am na ñetti xaaj muy benn waxa kon euh, ñett ak ñett mooy juróom-benn léegi nag lislaam dafa yittewoo ñi wopp yittewoo goo xamante nii moom kese kese kese doyoon na doyoon na waxtaan lan moo tax ñu boole ko ci ñuy néew doole ndax day dem ba foo xam ne daanaka dootu man lu bari dañ koy manal mën naa egg foofu am na ci foo xam ne itam en tout la mu mënoon dootu ko mën beneen bi itam euh, loolu euh, dafa dafay joué cim xelam dafay joué cim xelam maanaam xam nga ku ku jékki mën lu baree bari mënatul loola as ndiggante wala boog yu ci bari yoo xamante ni mënoon na ko mu commencé ko euh, tële loolu rek mën na koo jaxase loolu moo tax lislaam fonk lool maanaam ñuy yellee fi ñooñu néew doole te seenu néew doole nekk ci seenu yaram wala seenu xel ci wopp su dee ci yaram wi moom gis ngeen ne sunu borom subhanahu wa taala lim ko tudd ci marid lu bare bari am na yoo xam ne ko wax waaye nag kii moom bokk ci da bokk na ci li nga xamante ni dana doon nuñ koy waxeeti udr dana doon ngànt ba doo julli jumaa mooy am ku koo xam ne yow yaa koy toppatoo te yow rek yaa fa nekk su boobaa yow mi ko war a toppatoo julli jumaa wàcc na la yëlleef boobu euh, kii wopp moo ko moom sunu borom subhanahu wa taala sax da cee teg da cee teg lu rëy rëy ci loo xam ne yonent saasa moo ko nettali ci sunu borom lu mu wax nee sunu borom yomal xiyaam dana woo jaam ba ñëw mu ne ko ah, diw yow day wopp naa seet si wóoma sunu borom yow day wopp naa seet si wóoma mu ne ko ah, yow sunu borom yow nan ngay woppe te yaay borom bindee fii waaw na soxla nan nan laa lay seet seet te yaay bindéef kayfa auduka wa anta rabbul alamin yow sama borom nan laa lay seet seet te yaay borom bindéef bi maanaam wopp ak euh, néew doole la ak manqué la te yàlla dafa mat am kàttan maanaam loolu daf koo jaaxal munu xanaa xamoo ne diw sama jaam diw woppoon na xanaa xamoo soo ko seeti woon mën nga fay fekk maanaam loolu mën nga ko defal la ko bëgg a wax loolu mën nga koo defal kon lislaam dafa fonk euh, loo euh, loolu jox ko yelleef bu rëy rëy gis nga bokk na ci li ci yéeme ci wolof ak baat yi ñuy jëfandikoo lu waaye am lu mu jox yàlla ak am yàlla jox la loolu danaa ci ñëw ci kanam waaye maanaam loolu day firiraat rek li ko suñu borom ne woppoon naa seeti woo mu ne ko ah yow kayfa yaa rabbi kayfa aawdu ko anta rabbul alamin mu ne ko ama alimta anna abdi fulaanan mart xanaa xamoon sama diw sama jaam diw woppoon na falam taxudu kon loolu day firi lii maanaam soo ko soo ko seeti woon da nga ma fa fekk moo tax olof moom la ñuy firee ci am yàlla jox la ak lu lu am lu muy lebal yàlla wala lu waay muy jox yàlla léegi euh, ci wopp googu waxoon naa ci ñi nga xamante nag seen wopp ci woppum xel la woppum xel la am na ci ñoo xam ne yàlla da leen nattoo ci seenum xel nattu yi gën nañoo forante am na ñoo xam dañuy dem ba tàggoog seen sago carrément am na ñoo xam ne dañuy dem sax waliyaas billahi taala bay summiku am na ñoo xam dañu dem ba dootuñu mën a nekk ak nit ñi ñooñ itam xeetu wopp lañ yor waaye gis nga ñooñu bañ nañ ko ba yàlla moom da leen wàcceel moom topp leen ay jëf topp leen ay jëf ba pare nañ leen toppatoo nañ leen toppatoo bu baax a baax bañ bañ ci itam ne leen ñoom nag ak noonu ñu mel lépp lépp lépp seen alal ba tey ñoo ko moom munoo leen a jege jege jege ba moom seen alal du ngeen bokkoon ndey baay soo doonoon seen baay soo doonoon seen doom itam moom moom seen te ñu baree bari nag wax dëgg yàlla ci xel ku yàlla natt ba mu bokk ak nit ndey ak baay te kii antakum xelal miraas ma sax maanaam ñoom ñaar lañ ca moom ca kër ga booy xew lépp moo koy tabax da nga koy gis ñu ci baree bari lañu doon ci seen baay laa la wax de. mbaa lu ñu mañ may waa ji suñ koy may waa ji moom lañ ko may ko di diw laa ko jox jox ko ko moom mag ja wala rakk ja sa aki moo ko dugal ci poosam xëy na li ko ci jëndal benn cigarette bu muy tuxee ak benn bool boo xamante ni ci lañ koy tibbal di ko ber su su ñëwee ci kër gi mën ne la kër gi nga xamante ni moom lañ ca bokkoon ak su néew mu bool lépp tabax moo ko njabootam dëkk ci mën naa am toppatoo ba ca war ca na war a soloo na mu war a sangoo xeet yu mel noonu sax du ko ca du ko ca def te loolu loolu erreur dëgg-dëgg la ndax alalam moom moo ko moom alalam moo ko moom yow liñ la laaj ci alalam sant la ko ci mooy nga di ko saytul su fekkee ne alal la joo xam ne nga ci war a liggéey nag na ngay fexe ba di ci liggéey maanaam fere ya moom ci alal jëlay génn waaye alal joo koy dencal moom nga xam ne denc lay doon doonu loo koy liggéeyal sañoo cee lekk dërëm xanaa mu may la ko te nu mu la ko may sax léeg-léeg day am problème ndax dañ naan kii da koo exploité ñu baree bari bàyyi wuñu foofu bàyyiwuñ xel ci loolu euh, am na ci loolu kon yelleefam la waaye yelleef tam ñu koy toppatoo ginnaaw ñii nga xamante ni ñoom ñoo koy saytu di ay mbokkam noonu la war a ci askan wi xëy na euh, yelleef yooyu dafa gën a fëse ci kii rek ki ko gën a jege mooy kii yore ay mbiram muy gestionnaire am waaye askan wépp la war ku mel noonu ñu koy toppatoo ba léeg-léeg mën naa am xel mi ki mën naa jékki-jékki suy jéggi mbedd mën naa ki ñu koy bàyyi xel di ko jéggil su fekkee dana ko nangu Euh, di ko moytandikoo ci yi nga xam ne da koy lor surtout sawara ak yu mel noonu da ciy baax waaye di ko toppatoo nag ci wàllum lekkam ci wàllum cetam am na ku ma gis fan yii ci benn sunu groupe waa ndaam yi mu dugal ci euh, kii bu am solo benn texte boo xam day wax ci ñi yàlla nattu ci seenum xel mu ne nañ leen bàyyi xel ci weeru koor wi da nga gis kuy tëdd koo xam ne tëdd dara xiif xiif lay tëdd ndax xam nga ni weeru koor bindoo la bëccëg gi kenn du lekk moo tax daanaka kenn du saraxe lekk guddi gi su ndog su ndog jotee ñëpp dugg nañ seen i kër ña ngay ndogu taluñu kenn lu dul seen njaboot guddi gi heure ba ñu reer fekk ne maanaam daanaka du ñu génnaat di xool ko fi ne ñee itam mën naa am du ñu génn du ñu topp kër yi moo tax euh, weeru koor yi mën naa nuru lu lu tabe lool ci ñenn ñi waaye ci ñoom mën naa indi ay jafe-jafe ñu ci bàyyi xel baax seenu lekk surtout itam léeg-léeg ni ñuy mel ci ka jege Euh, su fekkee ne mën nañ ci ñoom dara war nañ leen di xool seen wér-gu-yaram di leen wat di leen euh, soppil ay yére ak yooyu am nañ yelleef ci loolu ndax ñooñu itam kon ñaari xeet xeeti wopp yooyu am na ci euh, ni ki noonu itam même kii wopp yi itam su fekkee lu ñu mën a faj la am nañ yelleef ci ñu faj leen su dee seen alal moom dañ leen ko war a defal su dul seen alal ñu xaw nuñ koy lijjantee jàppale leen ko ci askan wépp la su fekkee ne njaboot gi mënuñu ko waaye itam noonu la war a ki nga xam ne loolu euh, la war a ci ki nga xam ne feebar bi ko dal feebar yaram kese la muy wér-gu-yaramam muy ay ordonnance am ak xeet yu mel noonu